wa akrimna bi nuuril fahmi waftax calayna bi maxrifatil cilmi wa xassin axlaaqana bil xilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur calayna xazaa'ina raxmatika yaa arxama arraximin yaa rabbal caalamiin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 di ko ñaan mu boole ñu jàmmal defal ñu jàmmi àdduna defal ñu suturas àllaaxira ñoo ngi nuyu soppee almisbaax yëpp soppee almisbaax yi nekk ci biir réew mi soppee al almisbaax yi nekk bitim réew mboolem ñi nga xam ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi ñoo ngi leen di nuyu di nuyu jàngkate alxuraan yi jàngalekate alxuraan yi di nuyu ñi nga xamante ne ñooy soppe yonent bi alayhi salaatu wasalaam te baat boobu daanaka mooy jullit yëpp rek Euh, suñu bind yiñ génn yëpp ñu ngi doon nafaraat dundam gi moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax yëgguñ yëg ne bàyyi xel dundam gi dañoo amal njariñ waaye joxoñoo naa la ci yu bari démb ndax topp gi ñu ko yàlla topploo roy gim ñu ko royloo dañoo war a yóbbu ci ñu jàng ko moo tax xam naa réew mu ne lañuy umpulee dayob yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaye du senegal ndax mag ñi fi nekk te jaar fi mën ngaa jël ñoom ñëpp wala ñu ci bari seen dund gi yëpp dañ ko jeexal ci bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam di ko wooy di wax ne dama ko bëgg waaye buñ jëfee ñu xam ne ñii dañoo bëgg yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci jël seen tànk rek teg ko fa nga xamante ne fa la yonent bi tegoon tànkam te loolu mooy roy ko di jéem a dundal sunnaam yi seen kemtalaayal kàttan looloo tax ñu bëgg yonent bi lool alayhi salaatu wassalaam ma waxoon ne nag daa bokk ci xéewal yi ñu war a am te war ce góor góorlu mooy jàng dundug yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xéewal lagu yàlla jox nit xéewal la goo xamante ne yonent bi daa nekk doomu aadama ne ñun loolu tax na doomu aadama tedd bëgg nal yàlla ci mboolem li mu bind ndax yonent yàlla muhammad ci ñoom la ko génnee wala xadd karram na bani aadama moom nag yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak dundam daa am jamono joo xam ne daa mel ni dundug ñëpp maanaam nit koo xam ne day dund ci biiri mbokkam nit koo xam ne day dund ci biir aw xeetam nit koo xam ne day dundu ci biir ay way juram maanaam ay maamam ay baay ay mbokkam amee nag melokaan woo xam ne melokaan wu ñu wormaal la mooy ñu bëgg ko lool mu nekk nit ku dëggu lool waxoon naa ko démb waaye doonoon nit koo xamante ne nit ku maandu woon la lool ba ñoom ci seen bopp ñoo ko tudde woon al amin muhammad la ko maamam abdul mutallib tudde ba mu ganee àdduna waaye biñ koy wutal dàkkantal ci pénc mi wutaluñ ko benn dàkkantal al amin yow daal yaay ku wóor ki yaay ku jub ki maanaam bu ñu dàkkantal nit ci koñ léeg-léeg bu dee ci xale yu góor yi la day doon ku mën a euh, football wala mu doon ku mën a euh, euh, nekk ab boy town wala mu nekk lam nekk bañ koy dàkkantale loola yonent bi alayhi salaatu wasalaam liñ ko dàkkantale mooy kii daal mooy Muhammadul Amin mooy ki nga xam ne mooy al Amin mooy ku wóor ki mooy ki nga xam ne mooy ku jub ki yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci suñ bindu démb wax naa la digganteem ak ki nga xam ne mooy Khadija loolu nekk bind bu yaatu boo xam ne liñ ci mën a jàngate bari na lool ndeysaan soxna su baax su yàlla may teraanga waaye mu yëg ne daa war a jaamu yàlla muy tànn góor gu baax gum war a àndal liggéeyal boroomam subhaanahu wa taala mu tànn yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko yaama ci doy maala mag waaye damaa gis ci yow ay jikko yoo xam ne jikkoy sang la waaw damaa gis ci yow nangoo liggéey waaye damaa gis ci yow nit ku wóor damaa gis ci yow nit ku dëggu waaye nag ma gis la ngay nit ku fegu te am personnalité bi may daaneel jaaroon ak yow foofu ba agsi ci keroog bi nga xamante ne ñi ngay xëccoo ca xajarul aswad ñan ñoo koy teg ci seen place ndax teraanga ji ca nekk ak ja bañ déggoo ci ne njëkk a génne ci bunt bi mooy atte atte bi li mu wax dañ ciy ànd yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam génn ñu delloo ko mbir yëpp mu indi atteem bu maandu ba waa màkk bëgg ko lool jotaay bu mu mas ne tëll ñoo ñu yëg ne am nañ gan ñoo yëg ne am nañ gan ñu fonk ko wormaal ko bëgg ko kii may wax mooy muhammad mi nga xam ne booba ibnu abdallah la waaye waxagut ne maay rasulullah waxagut ne man la yàlla yónni ñu ñëw nag ci bi koy yàlla yónni moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne mbégte la mbégte la moo xam ne yonent bu fi mas a jaar lu ko jiitu moo la tax a ñëw te annoncé nga ne yonent baa ngi ñëw waaw annoncé nga ne yonent baa ngi ñëw wax nañ ne suñu maam aadama ak xawaa euh, ba ñu ba leen borom bi bindee rek lañ gis ca kaw aljanna ñu bind ca buntu ya laa ilaha illallah muhammadur rasulullah ñu xam ne kon am na lu xew tur wi ñu jël taqaleeg tur boroom bi tam war bokk ci sëtam yi kooku mooy borom yëf yi kooku mooy sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla isa alayhi salaam almasih daan na waxtaan ak ñam àndaloon muy taalibeem ya alxawaariyin ci mbirum yonent bi alayhi salaatu wasalaam di leen bégal di wax ne àdduna bi dana am kuy bëgg a ñëw nga xam ne buñ ko daan laaj ñoom naan ko kooku kan la kan mooy ñëw ci sa ginnaaw ki ngay wax kan la mu naan leen turwa mooy Ahmad turwa mooy Muhammadu rasulullah nekk misaal moo xam ne misaal nañ ko boo demee ca injil fekk ko fa boo demee ca tawraat fekk ko fa ñoom ñëpp ñu doon annoncé dikkug yonent bi alayhi alayhi salaatu wassalaam wa id qaala isa bnu maryam yaa bani israila inni rasulullahi ilaykum musaddixan lima bayna yadayya min altawraati wa mubashiran bi rasulin ya'ti min bahdi ismuhu ahmadu falamma jaa'ahum bilbayinaati xaalu haadha sixru mubin alqur'an nee na yonent yàlla isa ma ngay waxtaan ak nitam ña ma ngay waxtaan ak ñoom lan leen doon wax yaa bani israil yéen ñi nga xam ne yéenay set Yaaxoob yi yéen ñi nga xam ne yéen la ma yàlla yónni ci yéen man Isa ndawul yàlla laa lu mu ci yéen dëggal leen ma dëggal li ma indi maa ngi leen di yëgal ne am na yonent buy ñëw sama ginnaaw boo xam ne aw turam mooy Ahmadu waaw yonent bi alayhi salaatu wasalaam tur wa mooy Muhammad alxuraan nee na ba mu ñëwee nag indi lay yu leer indi melokaan yu leer yuy wane ni kii mooy kii Isa a wax ñu ne ko yow daal ab jabarkat nga rek boo xam ne dang ñuy tardeel waaye nekkoo ci dara wa kaanat sifaatu nabiyi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alaamaatuhu xad waradat fi kulli min altawraati wal injil yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay meloom leer naññi màndarga yi wane ne moom la suñ borom indi ko ca tawraat indi ko ca injiil mu nekk ca bi shaklin sharih ci loo xam ne lu leer la borom bi subhaanahu wa taala ma ngay xibaar di wax naan alladina yattabicuuna yajiduunahu maktuban indahum fi ltawrati wal injil yaamuruhum bilmaaruf wa yanhaahum an ilmunkar wa yuxillu lahum altayibaati wa yuxarrimu calayhim alqabaacisha wa yadacu anhum israhum wal axlaala allati kaanat calayhim falladina aamanuu bih wa cadaruuhu wa nadaruuhu wattabacu nuura alladi unsila maa ulaika humul muflixuun yàlla ngay misaal yonent bi alayhi salaatu salaam di wax aw melokaanam nan lay mel nan lay mel moo yonent bi nga xam ne nabiyul ummi lay doon maanaam yonent bu jàngut boo bindee aw du ko xam yonent boobu ay màndargaam misaal nañ ko ca tawraat misaal nañ ko ca injiil muy digle lu baax di tere bon li yàlla daganal mu nekk ca lam araamal mu sori ko ba ba noppi di ko soriloo nit ñi borom bi subhaanahu wa taala mi ngi ñuy wax kan mooy yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ñii ñooy ñi nga xam ne ñi ngi koy annoncé waaye nag ñëwagut moom yonent bi alayhi salaatu wa salaam walamma jaahum kitaabun min indillahi musaddiqun lima maahum wa kaanu min xablu yastaftixuuna ala alladina kafaru falamma jaahum ma arafu kafaru bi fa laxnatullahi ala alkaafiriin ci alquran nee na ba mu ñëwee moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam leer nañ ñu xam ne kii mooy këñ leen doon xibaar ci téere ya jiitu naan leen dana ñëw nee na yéefar ya daal di koy weddi waaw ñu daal di koy weddi jéem a soppi yëf ya téere ya bindaat ko ngir wane ne du yonent bi nga xam ne moom lañ doon xaar loolu nag euh, ak toskare la mbugalum borom bi subhaanahu wa taala yal na wàcc ci ñi nga xam ne ñooy jéem a soppi waxi borom bi ci di jéem a weddi ne yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yónni bi nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam kon annoncé nañ ko mu dund ca màkka at yooyu mu dund ba am lu mat ñeen fukki at ñeen fukki at ca la nag wax yu wàcc ca moom yonent ga tàbbi mu war a tàmbali wooteem bi mu war a tàmbali wooteem bi est nga xam ne man ngaa misaale gént man ngaa misaale yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg ne lii muy gis ci màkka ñu di ko samp muy ay xërëm muy ay bant muy yu ñuy tudde ay yàlla ñoom laata ñoom uzza ñoom xubal mu woon ginnaaw yooyu di dem ca montagne ma xaaru xeraa lañ koy wax ma nga màkk di fa jaamu boroomam léeg mu nekk fa ba guddi mu ñibbi léeg mu dem fa bëccëg yóbbaale ay yóbbalam la muy naan ak la muy lekk dem toog fa di settantal màggaayu boroomam bàyyi soxnaam su baax fii nga xam ne mooy xadija ci kër gi waaw bàyyi soxnaam su baax fii ci kër gi tey ngay xam dayob xadija ak wàccuwaayam ndax lii di bëgg a ñëw fi muy tàmbulee njaboot da ciy am solo lool léeg-léeg nit bëgg dugg ci dara soxnaama ko ci tee dugg waaw soxnaama ko ci tee dugg léeg-léeg dugg ci dara it soxnaa ma ko ci dugal yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu tàmbulee dem ca montagne ma di wéetali boroomam bu amul woon soxna su mel ne Xadija liggéey ba du sotti liggéey ba du sotti moo tax benn bis mu ñëw ca xeer wa nee na fa jaahul malak malaaka ma daal di koy dikkal muy jibril fekk ko ca xeer wa fa mu nekk ni ko iqra allahu iqra jàngal jàngal gis nga yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ko borom bi njëkk a wax bi mu koy yónni mooy jàngal waxu ko defal waxu ko defal waxoon naa ko fi ndax def xam da koy jiitu xamit jàng sabab la ci xam jàng sabab la ci xam moo tax mu ne ko iqra iqra keroog benn bind bi ko njëkk a jox leçon bi mu ko njëkk a jox benn baat la te mooy iqra yonente bi alayhi salaatu wasalaam tontu ko nee na ne ko maa ana bi maa ana bi xaari waaw ma jàng wala boog lan laay jàng nee na fa axasanii fa xasanii xatta balaxa minil juhdu summa ni fa xaala iqra mu mel ne da koo jàpp-jàpp gu dëgër nee yëngal ko waaw yëngal ma yëngal ma daal koy waxaat ne ko iqra nga xam ne wax na ko lu man ñetti yoon door a jàll ne ko iqra bismi rabbika alladi xalaq xalaqa al insaana min alaq iqra wa rabbuka al akram alladi allama bil xalam allama al insaana maa lam yaalam allahu akbar lii mooy leçon yonent bi leçon bi njëkk leçon bi njëkk jibril wàccee ko ci moom mooy baat yi ma doon wax di suratul alaq ba fii ma yem mooy li njëkk a wàcc ci alquranul karim mu ne ko jàngal ci sa turu boroom mi nga xam ne moo la bind mu bind nit jàngal ba xam ne sa boroom moo yor teraanga yi jàngal ci sa xam-xamu boroom bi nga xamante ne moo xamal nit lu nit xamul woon faraja biha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa daxala ala xadija bintu xuwaylidin radiallahu anha fa xaala zamiluni zamiluni allahu akbar yonent bi alayhi salaatu wasalaam jóge ca montagne maag tiitaangeem ak loo xam ñaqtooy xépp di katkat yi waaw yi tiit lool jaaxle lool ñëw ci soxnaam su baax sa waaw soxnaam su baax sama lay wax boobaak léegi di sayidatuna xadija radiallahu anha boroom këram ñëw tiit ñaq nee na ñëw naan ko sàng ma sàng ma maanaam Euh, mel na ku ku ñëw di lox waaw mel na ku ñëw di lox allahu akbar nga xam ne bu doon ci misaal ma ngay ñëw naan ko damaa jommi jommi naa li ma gis du nit li ma gis du nit li ma gis jinne la jommi naa jommi naa xadija xadija niwu ko foo nekkoon ba jommi niwu ko looloon ndox ba heure bii niwu ko xamoon nga ne lii dina la dal xadija dafa nekk jigéen joo xam ne keroog dafa mat sëkk lim doon waaw dafa mat sëkk delloo lim doon mooy delloo si jëkkëram yokk ko jaaxle léeg-léeg nit jaaxle njaboot yokk yokku jaaxle ba nga faf gën a jaaxle ba doo mën a régler li nga bëggoon a régler ba doo régler li nga bëggoon a mën a régler xadija loolu dellu ko ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam moom def ko wax ne ko kalla abshir fa wallahi laa yuxsiika allah abada ne ko déedéet doo koy jommi ay waay diggal soxna su baax si ne doo jommi maa ngi wat yàlla ne yow yàlla du la gàcceel mukk waaw sëñ bi yàlla du la gàcceel mukk waaw yow yaay ku baax ki nekkoon màkk gi jub bañ lay tudde ku wóor ki nekk saw dàkkantal yow jokkukatu mbokk nga déglul jikko yi xadija wax ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam jokkukatu mbokk nga innaka la tasilu rahim wa taxmilul kull waaw jokkukatu mbokk nga jokkukatu téye ko joxar bi ko yo ba yonent bi defarwaat yëg ne jommiwut waaw ba bi defarwaat yëg ne jommiwut xadija nag door a jóg nag ko solution door a jóg nag wutali ko solution ne ko jommi woo yàlla du la gàcceel mukk waaw du la gàcceel mhm. du la toroxal doo koy jommi jinne ñemewu la jinne daal dem nag ci ki nga xam ne mooy eh, waraxa ibnu nawfal ibnu azad ibnu abdul uzza mi nga xam ne doomi bàyyi la ci xadija wala baay la ci xadija moom wara moom waraxa euh, dafa amoon soxna soo xamante ne am nasaraan la wala xeet yooyu ca jamonoy jaahil yàlla baaxe woon na ko daal ba mënoon a liir mbind yi jàlloon doon jàng li nga xam ne mooy tawraat doon jàng li nga xamante ne mooy injil waaye nag nekkoon koo xam ne kilifa la koo xam ne bàyyi nañ ko xel xadija ne naa dem laaj ko ndax li dal sama jëkkër bu dalee sa jëkkër danga war a sol saw daal nag wutali ko ay solution ci mbir mi moo tax wallahi jigéen mës a des ginnaaw ci dara xoolal fii yëf yi tàmbulee jigéen na njëkk réagir yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi jibril waxee ak moom ba jaaxle dikkal ko ak tiitaange ci jigéen la njëkk a dellu ci jigéen la njëkk mu ñëwee ci kër gi jigéen la fi fekk benn seen soxna su tudd Khadija mu ñëw tiit ne ko damaa jommi Khadija ne ko jommi seetal rôle bi rôle bi jabar suyee foofu waaw bu dee baat bi jub na rôle bi nga xam ne moom la soxna taxawee ci kanam boroom këram waaw mooy delloosi ko delloosi ko ndekete soxna yi daa bokk ci li leen war di ñu delloosi waaw di ñu delloosi kon ki la war a delloosi xam nga du la yóbbu moom du la saadidoo du la teg du ki maanaam ki la war a teggil problème bu la tegee problème nga dee ci ay problème <laughs> ki la war a teggil problème bi su fekkee problème yëpp moo la ko teg yow toskare nga di yow ci problème nga nar a faatoo hmm. ki la war a teggil problème moom yàlla na la ko teggil rek xadija bi yonent bi ñëwee aku jaaxleem da koo wax ne ko jommi woo yàlla du la gàcceel yow ku mën a jokk mbokk nga ku baax ci sa njaboot nga ku yéene nit ñi jàmm nga kuy digle dëgg nga yow yàlla nan lay jëlee yëfam yu mel ne yow di ko teg yu mettee noonu yaa man loolu Xadija yëmut ci loolu mu dem nag wuti solution wuti solution keroog bi mu ñëwee ci eh, waraxa nettali ko li yonent bi wax ne ko ah man kat nag dama jaaxle ndax sama boroom kër bi nga xam ne ëw ma ku moom mu baax lool yiw lool bii daa ñëw ak ak jaaxleem waaw nee na daal am na lu ñëw ca moom sana ko ay baat nangam ak nangam wax ko lépp bam daaneelee Eh, waraxa ne ko eh, haada naamuusu alladi ansalahu llahu ala muusa ne ko loolu naamuus la maanaam mooy jibril malaayika la moom la yàlla doon yónni ca yonentam ya moom la daan moom la yónni woon ca muusa allahu akbar moom la yàlla yónni woon ca muusa yonent yàlla muhammad a ngi toog mu ne ko kon am na lu yàlla namm ci yow nar ngaa yor mbir mu wala yàlla dana la jox mbir mu rëy daane ko yaa laytanii fiihaa juz'un laytanii akunu hayyan id yuxrijuka maka ne ko aka neexoon ma dund ba fekke bu sa mbokk yi di génnee màkka waaw sa mbokk yi di génnee màkka ma fekkoon may dund te am kattan wallahi danaa bokk ci ñi nga xam ne ñoo lay jàppale seetetet yonent bi alayhi salaatu wasalaam jaaxle ne ko aw muxrijiyahum ñoom danañ ma génnee ndeysaan jël loxoom te ku ci dënam bu tedd ba ne ko man waa màkk danañ ma génnee màkk màkk gi nga xam ne dama koo bëgg awma lu moom samay maam am fi wàccuwaay ma juddoo fi ñu bëgg ma ba lu ma wax ñu ne ëskay ñëpp fonk ma danañ ma génnee màkk man <laughs> waaw allahu akbar waraxane ko naam lam yaati rajulun xat bi misliment maa jiite bi illaa uudiya ne ko nit mësta indi lu mel ne li nga indi ci ay mbokkam te indi luñ ko ay jafe-jafe ku ko mas indi rek dañ nag dëgg waaw ku ko mas indi rek dañ nag dëgg mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi borom weer wi liggéey bi tàmbali na liggéey bi tàmbali na ndax nag mi ngi war a wax nag loo xam ne xajut ci noppi ku yàlla nërta dimbali waa Màkka ñoo ko bëgg lool ba doon ko wooyee al amin mu xeeb seen jëf yi lool ak seen comportement yi ci pénc mi ak yiñ jàppe yàlla ba yàlla woon ko boppam ndekete yoo ki ma la waxoon ne la moo gane àdduna fekk baayam faatu ki ma la waxoon ne la moo am juróom benn at yaayam faatu ki ma la waxoon ne la maam jët ay at yu néew la ca teg faatu ki ma la wax ne la bàyyi tëxa ma ko yar mu ñeewante ko ca liggéey néew doole ba tax mu def commerce tax mu doon sàmm ay xar ca xuri màkk ya ki ma la wax ne moo jaayante ndax bëgg liggéey ba ñëw di liggéeyal soxna su tudd Xadija ba mujj jikkoom yu rafet yi tax Xadija nangu ko ne ko dénk naa la sama bopp nekk soxnaam ki ma la wax ne la moo jub ci waa màkka ba waa màkka naan ko al amin bëgg ko lool fonk ko lool mu yiw lool rafet lool kooku bi mu amee ñeent fukki at yàlla da koo tànn ci biir nit ñëpp ci biir ñëpp ci àdduna ne ko yaay ki ma ci gënal te tey laa la koy wax yow yaay ki nga xam ne yaay ñëw ngir war a génnee nit ñi ci ak lëndëm yóbbu leen ci ak leer yonent bi alayhi salaatu wasalaam allahu akbar suñ borom nag war a wàccee ci moom wax ju diis jooju nga xamante ne mooy alquranul karim yàlla ne ko maa la yónni maa la yónni ni ma yónnee woon yonent yëla jiitu inna xayna ilayka allahu akbar kama awxaynaa ila nuuxin wa nabiyina min baxdi wa awxaynaa ila ibrahim wa ismail wa isxaaq wa yaquba wal asbaati wa isa wa ayuba wa yunusu wa yunusa wa haaruna wa suleymaana wa aataynaa daawuda zabura borom bi nee na ko subhaanahu wa taala maa la yónni maa la déey ay baat li ma la déey iqra ba mu tiital la li ma la déey ba tax nga war a am jafe-jafe ak say mbokk loolu mooy alquran maa la wax yu ni ma la wax yoo woon ni ma la wax yoo noonu laa wax yoo woon yonent yàlla noox ak yonent ya ñëw ca gannaaw noox noonu laa wax yoo woon ibrahim ak doomam ja ismail ak doomam ja isxaq ak sëtam ba yaqub ak doomi yaqub ya sëd ya noonu laa wax woon isa noonu laa wax yoon ayuba ak yunus ak haruna ak suleymaan noonu laa joxe woon daawuda sabuur bu ñu yàlla may ñu dund ba suba yàlla nañu yàlla may ñu dund ba suba daañu wéyal dundug yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci ay bis yee di ñëw ca altine ja ndax ëllëg ak jàmm dañuy dellu si waat ci suñ bind fiqh yi jëm ci wàllu julli ak yi nga xam ne moo ci aju yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla aar yal nañu yàlla may ñu dund ba suba te weesu ko ñoo ngi leen di jaajëfal bu baax a baax te di leen jéggulu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 kama la nihaaya li wa adada kamali seen mbokk Mbàkke Sylla la ngeen àndaloon ci seen jotaay bii di almisbaax assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu